mbokki Sénégal arrondissement Fimela rawatina diwaanu Sine Saloum ginnaaw biñ ko defee ñaari yoon yu mucc ayib te neex foofee ca Ndakaaru ngir sargal ak i ñongal xale yu jigéen ñi yi laa wax de si seen ak seeni cosaan ki aada mosaan ñëw na fëgg si buntu LD Saloum war a wane serer ci édition spéciale ñu duppee ko mosaan manam ki gën a rafete taaru lool ñi siy askanu Saloum pare pour dalal festival bu mag boobee liko juroom fan le 8 jàpp fukki fan Manam le 10 décembre 2023 sous le haut patronage de monsieur Karim maire de la commune de Fimla. lëkkaloog ceeg ak rajo Fimela FM foofee ca timoñe écologie bu Marfa fa ko lay xewee mosaan dina leen andil programme bu mësul am ci benn festival na jongante diggante délégation yi bàyyi ko biir île bi yëpp ay soirée pieds dans l'eau maanaam di soirée say tànk nekk ci biir ndox mi ay ngel ay sortie ay foire yendu ci plage maanaam booru géej gi ay lambu séeréer yu nar a dajale champion yi nekk biir il du Saloum ngeen visité bolong festival Moussanek, nag dañ koy jagleel mboolem cak-cakmaan yi nekk biir commune de Fimla. rendez-vous Bangkok, du 8 au 10 décembre ngeen ñëw dund week-end bu riche ak de séréer info réservation au 77 150 04 14 wala 77 316 23 24 dañ a foog séeréer a foog arrondissement Fimela wer ndef na kam irni Saloum a kam Ndakaaru a festival mosaan ko a naf no moox irdi Saloum édition spéciale a ne'tin festival mosaan manam oxe moƴna a mos lool sax a lalit ka cosaan séeréer fa aada nongol décembre 2023 fat magana marfa foko me refna timonier écologe angoyaten ɓe no sereer angoyaten ildi salum fop festival mosan alion katen farajo fimla fm nakoy na kiliftef karim sena ref maire fimla festival mosan a ɓisid kanum programme fa andona ye jege sen jongante ka andona ye xana ref nder délégation ke ngadna ildi salum arrefka soirée ka andona ye pied dans l'eau manam ɓecakole dara chef nun kam foof le xana jeg ngel a jeg ka ke andona ye ten ref yendu plage a jeg ka foire njam san serer digante champion ke def na bir il di salum fop festival mosan koy ale a tan chak chak man ke def na commune la fop kon rendez-vous fa hangok le 8 bo le 10 décembre nu ngar ka tan ci san serer le week-end fa andona nous information et réservation 77 150 04 14 77 316 23 24 festival Mosana Hangok. Ngaria yo